noddu ciw làkk mooy yëgle moom noddu ak jaamu yàlla la ci ay baat yu nu ko jagleel gannaaw bu waxtu julli duggee ngir ñu yëgle ne waxtu wi jot na lislaam daa def noddu muy luy yëgle dugguk waxtu julli ak feeñal kàdduk tawxiid ak woote ngir julli mbooloo noddu màndarga la ci lislaam màndarga goo xam ne dafa am ay ponk lislaama ko teg fa war ñu sàmmoon sàmmonteeg loola noddu ngir julli du wér mukk bu fekkee dafa jaar ci lu ñu enregistré ndax noddu ak jaamu yàlla la jaamu yàlla faw mu ànd ak yéene waaye ku dégg noddu mu jóge ci xarala yu bees yi kooku ñaari mbir am na ca fekkee noddu ga daa xarala yu bees yi fekk waxtu wa jot na mu jóge cib noddukat kooka daa war a wuyu ji bu fekkee noddu ga daa jóge ci enregistrement te fekk sax waxtu wa jotul kooku du wuyu ji ndax nodd googa wootewul julli waaye lu amoon bu yàgg la naka noonu it du wér mukk ñuy roy imaam cib julli gu jóge cib rajo wala cib tele donte yaa ngi dégg kàddu ga mbaa nga di ko gis ndax kat daa bokk ci sarti julli mbooloo ñu taqale sàppa ya te rafetal ko